se poser des questions en disant que waaye yow ma jàmbal yow. sa xarit nekkoon ah, bu fi am de de Macky Sall ci nguur gi passé moom waaw bokk na ci ñi koy njëkk a jox qu'est-ce que Madiambal n'a pas dit pour que ñoom Ousmane Sonko yi dee ci kaso bi wala wala ñu ñu ñu faagaagal mais moom depuis lors dafa mel ni kuy def clin d'œil le président ah, mais il est obligé il est obligé tu penses que Madiambal pour pour ses affaires il est obligé de de connaître sa bataille non cette bataille là est mais il c'est fini c'est bu tey bu mu mën a xeexee ak ñoom. bu njëkk daana wéeru ci président Macky Sall daana wéeru ci armée daana wéeru ci justice wax lu ko neex ma jàmbal ki passé tout son temps à insulter les magistrats mais il faut qu'il continue ça. Hmm. xam man bindoon ko tey boo gisee li ma bind yor-yor bu tey j'ai rappelé exactement xam nga jour pour jour tey jii la ñu la ñu woon Bassirou en prison tey jii le 18. tey jii ça fait un an jour pour jour tey jii la ñu ko envoyé woon en prison. le 18 le 18. le juge bi ñu ko génnee nii man j'avais écrit un article à une de mon journal wax les conditions dans lesquelles arbitraires yi ñu arrêté Bassirou et dans l'article j'ai dit que Madiambal Diagne wax na fi loo xam ne moo gën a garaaw fuuf lu Bassirou Diomaye wax ma Madiambal ngi nii di trembale kenn laalu ko fii la fi taxaw fii saaga saaga fi juge en disant que les juges ont un comportement voyou kenn wax ko dara dem na ba ne juge est-ce que sax ils ne sont pas encartés dans le Pastef juge yi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ñoo doon kii affaire Ousmane Sonko bi. Hmm. kenn waxu ko dara. Bassirou qui parle de la clochardisation de la justice on le met en prison mais clochardisation mooy lan mettre dans une situation économique faible tout simplement loolu rek la du tekkul leneen. ñu réyal xam nga tamit te aujourd'hui ñun dañu am ay mots yoo xam ne ay cliché la boo ne nit clochard sax mu defee da nga ko saaga alors hmm. mooy yow économiquement tu es loolu la du leneen. Mhm. il parle de ça. man leen yéen au contraire vous da ngeen a vous devez rendre ju xool da a waroon sax rendre comment dire hommage à Bassirou Diomaye Faye parce que li mu la wax mooy dëgg. parce que bu demee ba wax loolu ça veut dire que yéen économiquement tey vous êtes faible économiquement parce que moo tax ñu leen di def loolu lii ñu leen di koy ñu ñu leen di def loolu lii. dans ma ne la ma jàmbal jaaj waxoon Bassirou naa même pas dit un dixième. Mais pourquoi Bassirou est envoyé en prison Parce que c'est le numéro du passif. Au même moment l'œil et l'oreille du président et la langue du président moom ma ngay wax lu ko neex. Madiambal Diagne waaw léegi nag kooku tey moo bëgg a tourner taxaw ne woy école yi mais lan moo tax Madia il doit se poser la question Macky Sall mi ko jige woon la moo tax jox ko. Hmm. affaire bi du leen. c'est pas pour la performance de nos élèves mais c'est une affaire de gros sous loolu la du leneen. du leneen c'est une affaire de gros te li ma la wax nii. nañ dama ci kanam. no yow kay instant bi opération yoole bi moom xam naa ne moom. dama ne. yow yow yow opération yoole bi moom Serigne Saliou yaa war a ji yaawu Selim. dama dossier yi nga yor of nag ak yaawu Selim man day jibi Selim waat naa ko càll ba affaire bi amee dama cee yore dossier boo xamante ne nii dama ko ci ne nit tey. mais da nga koy génne quand no école yi bu affaire yi génn comme kon ne ma génne ko. Hmm. coow li su continuer je te jure ici laa la ko dinaa ko génne. et loolu c' depuis des années et des années mooy ba ñu door tëj école yi. Mhm. j'ai un dossier complet sur Yavuz Selim. c'est une affaire de requin et de gros sous les gens veulent faire revenir l'école c'est pas pour la performance de nos élèves mais simplement c'est pour se remplir les poches loolu mooy dëgg et je pense que le président la wax ma sax mais demande sax j'espère que du ko sax xool du ko sax xool on l'espère en tout cas les connaissants <laughs> duñ ko xool chaque jour nii laa jeexaleeg yow man de buñ ma ko laajee man ma. nga wax ma ma wax. chaque jour nii laa jeexaleeg yow donc. titre euh, yoor yoor jeudi bu jot. mi ngi mi ngi nii voilà waaw tey 18 18 avril 18 avril 2023 18 avril 2024 la justice de Macky a envoyé Bassirou Diomaye en prison. c'est ça. d'accord léegi. et lii ça a accéléré mon mon processus. bi moo la yóbbu de. waaw parce que 38 jours plus tard on m'a mis en prison. c'est ça. <laughs> Serigne eh, joxal leen ma une bi waaye. <laughs> une bi fële ne la maa ngi gis ministre euh, de euh, des sports. la nga wax ci moom nii. non euh, le à dire l'un des grands défis bu ñu koy xar mooy la construction des infrastructures. waaw Demba Diop. waaw. ça di bëri ah. football comme yëpp ah yi ci des yëpp ah. d'accord e boo liree aussi moom dans le projet du PASTEF tu sens qu'elle a une vision hein, vraiment dans le monde du yaa ngi moom yam moom tey dañ ko dañ ko traqué woon sonaloon ko. ah oui. ba taxoon mu jógee fi mu nekkoon dem. mais loolu nag. ñu affecté ko ci ci ci àll bu tàng. moo tax il ne faut plus que dans ce pays. que ñu bëri xamuñu ko mais moom tey euh, subir na quelque quelque. ah oui quelque quelque injustice ah. elle n'est pas la seule de fii <laughs> ji bi fii waxuma la fii ñi xool soupçon xam nga même gars yi dañuy wax sax même j'ai dit dans corps les plus insoupçonnés. ñenn ñi ñu la xawee kii nii sax ñu la soit ñu dàq la wala ñu affecté la suñ ko mënul. Ousmane Sonko était devenu un danger pour ñenn ñi sa téléphone dootoo def profil bracelet Pastef doo ko takk même message boo xam ne profil profil sax soo ko defee ci yenn corps yi bu ñu ko gisee sax am nga problème. am nga problème. dëkk dina doxee noonu. c'est compliqué il faut qu'on laisse les gens libres. waaw il faut qu'on laisse les gens loolu mooy dëgg man tey dama jàpp ne tey am na ñu war a toog jege jomaay président Diomaye jege le premier ministre Ousmane Sonko ba pare taxaw daal nañ ànduma ak yéen. di ko wax dëgg. waaw taxaw ne xool ne leen ànduma ak yéen loolu mooy dëgg taxaw ne leen xool man ànduma ak yéen waaw wala. teg ko fu leer nag je ne suis pas d'un même bord politique mais bien sûr. waaye ko fu dëgg. et eh, c'est ça la démocratie. man laa gëm maa ngi gis ci démocratie yaa ngi wax cas cas pratique bu RTS nga ne dafa war a servir de. mais oui. parce que RTS bu njëkk daawul invité ku nekk opposition. mais c'est ça. on espère que rupture am na léegi. non rupture dafa war a am. ci sa une bi moo tax moo ma inspiré. moo tax mais oui dafa war a am. RTS cest à dafa war a am et là c'est un appel de Ablaye Sakho Faye. qui mhm. a euh, qui a été à Sud et a été à la RFM et qui jette je crois la rajo Trade Trade rajo mais li mu wax muy dëgg hmm. c'est-à-dire il faut qu'il y ait rupture à la RTS hmm. man keroog seetaan naa benn journal boo xam ni hmm, j'étais même vraiment xam man temps yi moom dama scotché RTS ah temps yi baa da nga bokk ci ñi abonné ci RTS bi man de c'est la seule que je suis fi ñu toll nii ah bon <laughs> regarde la RTS avec beaucoup de bonheur non daa moo seetaan parce que c'était rien tous les soirs aussi mais je pense que maintenant c'est quelque chose tous les soirs <laughs> ah oui parce que man tu sais ce qui m'énerve <laughs> mooy fois gis nga très bonnes émissions il y de très bons journalistes. waaw ah oui, oui, loolu on en discute même. les journalistes moom ce sont les meilleurs mën na mais le problème qui se pose mooy bu ñu ko bëggee idéologiser dafay indi problème. nguur gu fi nekk rek. waaw point cest dire que loolu. déjà kaw na commencé sax waaw bëgg nañ tamit gis tamit du côté de l'autre côté. ñu lay léegi tamit mais nag dama ne pour l'instant. on ne peut pas leur faire un procès. parce que c'est toujours l'ancien directeur. moo fa nekk moo fi nekk ba tey pour l'instant. amaguñu beneen feuille de bu bees. koo xamante ni y' a un nouveau directeur bu wax ne voilà comment nous allons dégg naa ah, moom nañ ko nañ ko bife ah, ci non xool jifi Serigne Saliou moom nañ ko bife ci ci non nañ ko bife ci yooyu. man dégg naa ah dégg naa ko de Serigne Saliou Guèye présenter à la RTS. jibi li nga gis fi léegi li nga gis fi léegi yor-yor bii nañu bàyyi foofu man foofu laa foofu laa mën a nekk nañu ma bàyyi ma gérer yor-yor fa laa mën a nekk. waaw ah kii moom c'est mon enfant c'est mon bébé nañ ma jàppale mu grandir léegi RTS il y a des gens très compétents dans ce pays c'est ça billaay et gis nga il ne faut pas aussi que ci rumeurs yi ñaan diw diw diw diw mm. diw et cetera man xam naa ne l'actuel ministre xam na nan lay doxale dañuy xam RTS kan lañ fay teg qui va ne les changement vraiment structurels yi ñu fay xaar faire de sorte que la télévision la se réconcilie avec vraiment le peuple. surtout ça. te loolu su boobaa qu'on ne pollue pas qu'on n'inonde pas euh, comment dirais la RTS avec l'image du président et l'image aussi du premier ministre parce que su bëree day saturé. ci hmm. changement sax du am kon. non day saturé doon dund. ji gis nga li nga gën a bëgg. da ngay gis inondation day am wala nit ñi sonn. wala dara xew. ñu def comme si dara xew. moom la wax le président. li nga gën a bëgg yow. tey ci lekk mu wóor na bu la ko indoon nga lekk ko tey lekk ko suba lekk soo ko tegalee dix jours ceeb ceeb ba gën a bon moo la ah, non neel ndawal gi nga xam te ni des fois da nga koy kii nga tabaski jot sax doo na mën a lekk dara xam la parce que da ngay parce que way da ngay saturé organisme daf koy mujj rejeté c'est-à-dire ah. nit ki aussi noonu la mel c'est humain c'est humain moo tax ma ne tey la le meilleur de qu'il puisse rendre à l'actuel gouvernement c'est que il faut les sortir